ko bëgg nilaa bi ah ñaata waa d'accord maa ngi lay xaar. c'est bon. voilà c'est bon. ça va. ok. la deuxième fois nga ci progrès macha allah. non sant yàlla bu baax. kon baax na léegi diw bi da nga koy ah? ca rokk bu ndaw bi nga xamante ne foofu la réservé ngir rekk mun a amal liggéeyam ca ba fay daal di créer entreprise am mi nga xamante ne dafay faral di defar ay saabu waaye tamit lu ci mel ni cosmétique loole nag mu nekk ay produits yi nga xamante ne 100 pour cent bio naturel entreprise biile mu ngi juddu ci ay xalaat gannaaw ba mu amee formation ci wàllu yi nekk assistante de direction waaye it daa di am it ubbi entreprise bi nga xamante ne moom mooy sax directrice bi. Euh, je suis euh, assistante de direction de formation donc euh, j'étais en entreprise euh, à partir de 2012 ba léegi je suis en entreprise voilà donc mais depuis 2021. Euh, Euh, j'ai décidé de me lancer aussi euh, sur euh, dans l'entrepreneuriat voilà donc en faisant connaissance avec certaines personnes donc l'entrepreneuriat m'a inspiré donc j'ai voulu me lancer Euh, de ce fait depuis 2021 euh, ba léegi maa ngi ci daal di di góorgóorlu avec euh, les moyens de bord mes propres moyens et tout et maa ngi sant yàlla. Tata Roxy comme ni ko ay clients di woowee mu ngi ñëwaat ci entreprise bi mu dubbee Roxy Bio lan moo waral juddub entreprise bii lee. Roxy Bio entreprise cosmétique la voilà on a commencé avec la gamme de cheveux voilà donc à vrai dire benn produit kese la woon muy chantilly de quarité et après euh, par la suite lañ koy yokk voilà léegi Roxibio nag euh, c'est né je pense de su ma ko mënee wax euh, c'est né de la frustration d'une mère voilà qui voyait sa fille amul karaw donc euh, comme no société sociétés sénégalaises euh, ont tendance à se moquer des enfants donc tout le temps ñu naan que yow sa bopp bi amul karaw sa bopp bi dafa set et tout donc j'ai décidé de faire quelque chose léegi ma ma concocté benn kii fekk defaguma sax formation ma concocté benn euh, chantilly boo xam ne je fais de mélange d'huile et tout huile yu verte yu baax donc ça a marché ba euh, les mêmes personnes yi nga xam ne nii euh, ñoo doon c'est elle qui se moquait de ma fille ils m'ont vraiment poussé ils m'ont ils ne m'ont même pas donné le choix ñu ñu poussé ma pour ma defar diw bi jaay leen parce que ils ont vu les résultat sur ma fille un an après mu ñëw ëpp seen doom yi karaw fuuf sax quand je dis fuuf c'est vraiment fuuf voilà donc euh, ñu laaj ma man leen maa ko defar voilà wan leen aussi moi aussi de là je suis partie ba yegg si fi ma yegg si aussi si sama propre cheveux affaire bi jaaxal leen léegi ñu topp ma defaral defaral defaral defaral voilà donc euh, au bout d'un an euh, de de ñu may sonal rek naa ma yoo xanaa bëggoo suñu doom yi aussi am karaw du coup je lancé benn mars benn mars 2000 mars 2021 voilà donc j'ai reçu euh, j'ai reçu 61 mille de de kii mooy surplus euh, impôts yi ñu lay fay à chaque fois chaque année voilà donc euh, ma ma utiliser 61 000 yooyu pour débuter euh, gamme bi defar chantilly defar huile aussi c'était pas une infusion à l'époque defar huile rek mélange d'huile ak benn chantilly ma commencé di ko commercialiser ci quartier bi voilà ku ma jaay mu nga gis résultat les gens les gens ont commencé di ko waxante voilà ba mooy jaay diw bu baax ca ba moo ma jaay diw bu baax ni ñu ñi dama fekk sama kër di jënd voilà je me mais ça là pourquoi ne pas en faire quelque chose de vraiment concret voilà loo xam ne nii ah war na mën a nekk pourquoi pas Euh, c'est parti comme ça après ñuy def ay recherche di améliorer wu jusqu'à notre intégration dans Give One bu Thionia voilà donc euh, en étant membre de Givon mm, ñu ñu bénéficier ci formation bu euh, bu centre bi Women Training Center bi nekk euh, Sendou voilà donc il a mis ça aux dispositions à la disposition des femmes donc foofu lañ formé au côté cosmétique et tout améliorer suñu compétence du coup on a élargi les choses appliqué liñ fa jàng yëpp voilà donc ak recherche yi ñuy def à côté duñu bàyyi donc euh, ils m'ont appris à faire des savons très simples macha allah mais j'ai apporté ma touche naka noone ndaw siile di ñu présenté naka la def ba mun a defar ay ensemble de produits yi nga xamante ne yooyu lay jaay askan wi. su ñu defee karité bi ba pare ñu def mélange d'huile huile yi donc c'est des huiles vertueuses yoo xam ne ni euh, day tax karaw bi nooy du damm da koy renforcer et voilà donc suñ ko suñ ko chauffé tuuti ñu def ko émulsion donc sànni si tuuti sur d'abeille pour euh, côté émulsifiant sur d'abeille bi étiquette yi et tout et léegi après day jàpp nag ni mu yolomee nii après day jàpp dëgër su seddee parce que c'est à chaud en ce moment. voilà bi ceeb la ak meew moom lañ boole mixé léegi utiliser ndox bi defaree ko sàmm. moom lañ defaree savon ba léegi dafa baax si karaw voilà donc moom la ñuy def nii bàyyi ko donc boo gisee am na fenugrec grec am na poudre de girofle voilà am na ay morceaux aloe vera et moom ngay def si cheveux bi pour humidifier ko ba pare après nga fixer humidification bi ak chantilly bi. ci mébét. ak xalaat bi nga xamante ne moom la amoon Tata Roxy daal di am objectif bi nga xamante ne moom la tëral ngir rek mun a dimbale jigéen yi ci seeni wàllum wér-gu-yaram waaye it ci di leen former. ma daal di na nag ça je vais en faire quelque chose de concret loo xam ne nii ça peut me servir un jour et j'avais pas tort du tout. Voilà, j'avais pas tort parce que depuis décembre, l'entreprise où je travaille depuis 2012 a fait à des, à des, à des problèmes financiers. waaw mu ngi mu ngi mu ngi jànkoonteeg ay problèmes financiers yoo xam ne ni euh, mënuñ jot salaire voilà mënuñ jot salaire depuis boobu donc euh, la plupart entrepreneur entre noonu laa koy employé yu si ëpp ñu ngi si ay problème yoo xam ne nii kenn kenn kenn xamu ko donc man maa ngi sant yàlla parce que fekk na ma ma am ci lu ma jàpp. donc je pense que l'entrepreneuriat m'a sauvé voilà parce que je continue maa ngi continuer di subvenir à mes alors que su su ma fekkul woon man mettre li en place comme situation bi ñeneen employé yi nekk man situation boobu laa naroon nekk ñun ñu ñun ñu bénéficier ci euh, formation boobu ñun tam de notre tour on on doit rendre l'appel l'appareil donc man ku ma sollicité bañ na ko ba yeneen euh, yeneen promotion yi nga xam ne ñoo ñëw après ñun voilà ku si bëgg a lancé wu rek euh, dañ lay mettre en rapport ak man soo ma woowee <laughs> ma wan la ni muy fi ngay jaar et su si y a besoin tu viens je te montre euh, comment je fais et ci wàllum entrepreneuriat faw rekk nit ki mën a am ay moyens yu taxaw ngir def ko waaye jaba daanaka juumul benn yoon ba mu jéemee taxawal entreprise biile ci koppar bi nga xamante ne moom la amoon ngir tàmbale projet biile. lépp donc y a Zeynab lañ koy wax voilà donc j'ai fait en sorte qu'elle bénéficie d'une formation dama gis formation j'avais pas les moyens de lui payer ça mais j'avais une amie qui en Chine muy maye ma gis mu maye bourse alors que la fille yàgg na ma topp ndax ma jàngal ko voilà ma ne ko c'est l'occasion ma ma ne ko defal signe kii léegi bu mu ko mayee bu mu ko mayee bourse bi mu def ba pare donc elle est venue je lui ai ma jox ko huile jox ko ay mul mu jënd quelque ma may ko mu jënd lii ma man ak kooku ñu ñu dajale daal di koy may donc elle est en de faire ses savons my mère mm. comme man my mère laa koy woowee mm-hmm. ma tuddee ko les nokos de my mère imprimel ko étiquette et lii nokos bi moo nekk nii lii sauce verte la aussi donc elle fait des merveilles macha allah rëccuwuma li ma ci dugalee sama xaalis elle m'a rendu l'intégralité de mon argent et continue de faire ses productions comme ni ko entrepreneur yi yépp daal di bëgg moom ba fay mébétam moo di taxawal ab kër bi nga xamante ne foofu la mën a nekk ngir rek mën a woyal liggéeyam waaye it di dimbale jigéen ñi ci seeni wàllum formation yi. bëgg naa daal euh, bëgg naa am place de un bu ma ak magasin atelier boo xam ne dinaa fa mën a élargir sama production parce que vu que je travaille dans ma cour espace boo xam ne ni. war naa mën a defar yenn quantité yi voilà et puis la visibilité aussi donc euh, je suis pas très très très euh, sur les réseaux voilà maa ngi koy doog a commencer et et ça donne kii mais bëgg naa am yeneen employé yu bari macha allah am euh, sama moroomu jigéen yoo xam ne je peux les en en en leur créant des emplois loolu moom bëgg naa ko bu baax a baax a baax a baax bëgg naa dem ba am ay employés yoo xam ne dinañ ñëw ñu ñuy liggéey liggéey bi ensemble bés bu tur bi yeggee fenn ba. Euh, demande bi gën a yokk et tout ci liggéey bi nga xamante ne moom lay def ci entreprise biile bokk na it di dimbale jigéen yi ngir ñu xeex lépp lu jëm ci wàllum xeesal. parce que loolu li ko waral mooy comme euh, la plupart des produits boo si boo si génnee produit góor yi. Euh, li ci li ci des mooy ëpp voilà donc et les femmes ici au Sénégal yaa ma gën a xam phénomène xeesal bi donc euh, te xeesal moom mënul nekk produit naturel voilà donc euh, moo tax ñoom ñuy préféré jënd ailleurs alors que soo liiree notice bi amul benn moo boo xam ne ni di nga ko si di nga xam qu'est-ce que ça signifie waaw boo liiree ingrédients yi mënu ay moo yu compliqué des noms scientifiques yoo xamul fii ci Sénégal bëri na ay jigéen yi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci li ni mel waaye ci jeneen wàll ji ñu gis ay produits yi nga xamante ne ñu ngi bawoo bitim réew dugg fii waaye ca bali mu xamle moo di naam concurrence bi dafay am waaye jamono ji askan wi mi ngi yeewu di olbatiku di ñëwaat ci produit naturel yi. la nature nous bu ci mel tamaate bi on en a plein au Sénégal. alors ko tomate le bien que ça fait euh, si si yaram kenn mënu la ko mënula ko xam ça éclaircit naturellement euh, le curcuma ça éclaircit naturellement voilà donc les produits naturels sont là mais bon sénégalais euh, bon je pense que c'est à l'image de ce qu'on montre euh, à la télé waaw góorgóorlu rek toogaay amul njëriñ loolu laa leen di wax jigéen moomul toog te jigéen lu mu bëgg a def da koy def yàlla moo ko def loolu yàlla moo ñu may loolu on a la force amul loo xam ne nii jigéen war mënu koo def daa fekk moom moo ko céemul on peut fair faire on la maison en même temps gérer le boulot en même temps et faire son son petit euh, small business bu ndaw ci sa ci côté bi c'est bien possible parce que ça peut mën na fatta ay trous yu bari ku toog defoo dara y a quelque chose y a toujours quelque chose à faire sama savon yi je propose ça à des femmes yoo xam ne dañoo toog defuñu dara ma di leen ko jaay par paquet de 24 paquet de 12 paquet de 50 ñu di ko jaayaat je fais en sorte que benn savon bu ne ñu am ci 500 pour euh, juste pour pouvoir ñu ñu démarrer quelque chose voilà donc ya a y les opportunités il faut aller les chercher et, et venir euh, teg teg dara ci table bi <laughs>